na fi ku ne xam na ni euh, fu mu tollu jigéen ñi lay plaidel fan yi Sénégal gis nañ natt yi dafa bari ci jigéen ñi jigéen ju ñu rey jigéen ju ñu def nii jigéen ju ñu def naa yooyu soxna na fi bu koy dégg à tànk ak fi mu toll ci jigéen ñi lu muy def ci waaw xanaa am ci naqar lool am ci naqar am ci métti ndax jigéen mooy yaay te jigéen mooy soxna jigéen mooy sœur jigéen mooy doom te tamit wax deug yalla kilifa go fi gis wala ku góor ko fi gis mu am makam jigen na ne ci ginnaaw bon nañi dolli di yërëm jigen di respecter jigen fonk jigen ndax jigen moy yaay moy sœur moy yoré kër lool dal metti la ci am ak nakar di lancer appel tamit ah ñu gëna a jigen jigéen ñu gëna a jigen jigéen ñi kooku ngi koy lancer appel bu baax ndax tan yi jamono yi liñuy dégg ak liñuy gis metti ñu trop nañu gën a yërëm jigéen ndax ku nekk am nga doom bu jigéen am nga yaay am nga tante am nga sœur te ku leen ko defoon tamit du la neex nañu dawal yërmande ba pare gën a dellu ci yoonu siraatal mustaxim dellu ci suñu bopp dellu ci suñu diine am yar am teggin yamale suñu bopp te xool li ñuy jëfandikoo ndax yenn saa yi di nga jëfandikoo yoo xam ne dalay tàkkaleeg sa sago ba ngay def yenn yi ndax ñaare boo seetee kuy def yenn yi buñ ko gëstoo ba ci biir danañ am lu ñu gis loo xam ne da koy defal cinq cinq cinq cinq minutes de folie yoo xam ne après danaan li ma def nii lan la bon nañuy gën a sellal yaram wi di xool li ñuy def te moytu àq te xam ni àddina yàggul te loo fi def ah àllaaxira dina doon lu doy waar lool daal waaye daal maa ngi lancé waat appel ñu gën a yërëm jigéen ndax bu ñu xamoon jigéen lu muy daj ci ci am tuut tànk ci nekk euh, war na lor neuf mois métit yi ngay daj tout tànk boo ko amee doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg xëy togg nit ñi xewlu nekk ci kër gi suba ba ngoon di liggéey ah loolu metti na loolu wax dëgg yàlla bon nag nit ñi yërëm nañ jox jër cër jigéen ñi jox leen li nga xam ne moom lañu moom la ñu yelloo loolu daal maa ngi ci lancé appel waaye daal en tant que jigéen ah am naa ci métti trop wax dëgg yàlla sa frère Bombardier ñak magam bërki dem bu yagul papja wa waa diko di rek mom Bombardier diko jale magam joju wax deug yalla nekkon na ko xamni machallah lima constater ci mom nitu jàmm la ndax dama daan setlu bu ndam amé bu ndam amul dang koy gis muy ree te loolu yombul man mi sax mënuma ndax sa deret di bëri ndam am ndam amul sa su ne même kanam gi lañuy gis te ñëpp li ma gis ci moom ñëpp la sekkal jàmm te loolu muy loo xam ne lu jafe la pare ànd ak dal ndax nit tamit su ko fi yàlla jëlee nga xam ne jombul kenn ku sa àpp jot nga dem na ñu fekk ci ci li neex borom bi kon nag boo koy waxal da koy waxal qualité yi nga gis ci moom waaye gis naa jàmm ji ci moom gis naa dal bi gis naa ni mu fonkee nit ñi ñëpp la ameel jàmm ah ñu ngi koy ñaanal a ah, yàlla na yeggalee ndawam foofu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaree àjjana bombar Bombardier nag ñu ngi ko koy jaale wax dëgg kenn yéenewu ko lii waaye bombar ji tamit ñu ngi koy ñaan ñaanal yàlla may ko xolu muñ ndax ku nekk xam na ni moom kenn la woon ci moom waaw man loolu rek moo tooyal sama xol waaw moom kenn la woon ci moom ñu koy ñaanal yàlla yàlla may ko xolu muñ moom it euh, way way dëddu bi suuf woyof ci kawam ñu ngi ko koy ñaanal di ko jaale baax di ko jaale waajuram bu jigéen di ko jaale njaboot yëpp di ko jaale waa Mbuur waaye di ko jaale askanu làmb yëpp ndax làmb tamit ñoo ñàkk. xam ni soxna na fi mooy yaayu yaayu mbër yi ak fu mbër mën a bokk daanaka saa bu daaneek bu daan daan maa ngi gërëm sama yaay soxna Fallou Fall euh, Jules Baldé Junior euh, di xale bu dëkk Pikine di mbër moom tamit temps yi natt dal ci kawam feebar euh, ba ñu di ko ñaanal ndimbal ban appel la soxna si di lancé ci. waa xanaa di ko ñaanal yàlla. ci barke yonent bi sama maam sallallahu alayhi wa sallam barke bu sëñ Fàllu ah maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yëkkati may ko wér eh, di lancé appel ñuy jàppale mbër yi di jàppale néew di doole yi di jàppale malaati surtout ndax feebar eh, amoo mën-mën gi munoo faj sa bopp loolu rek naqar la loolu rek ñaari feebar la yoo xam ne danga ko boole may lancé appel ah ñi nga xam ne mën nañ koo dimbali seen loxo jot na seen ginnaaw ah ñu dem jàppale ko ci lépp loo xam ne ci mën nañ ko jàppale ndax jàppale tamit du mbiru am am rek wala mbiru joxe nit mën nga ko jàppale ci côté bu ne nit tawat sax nga déplacé wu dem këram bokk ak moom naqar gi tiis gi mu xool la loolu rek jàppale nit la waaw maa ngi lancé appel boobu tamit di ko ñaanal yàlla man soxna na Fallou Fall yàlla na ko yàlla may wér bu mu teguwaat ci la mu nekkoon delluwaat ci boppam ci barke yonent bi salaay waaye di leen sant tamit bu baax a baax di leen ñaanal yéen gudd fan ak wér di kontaan ci seen teewaay bi am nañ ci mbégte lool macha allah.